Palestine tey àdduna bépp a koy coow jullit yooyu sànn yu néew doole Israël kàccoor bon bi di leen tooñ Amérique gemb ko jullit yépp ne pat biig ci guddi rek junni junni missile sànni nañ ko junni junni missile lañ sànni ci biir ci biir réew ma biig ci guddi biig rek juróom-ñetti fukki nit lañ ci rey ak juróom-ñeenti juróom juróom-ñetti junni juróom-ñeenti téeméeri nit yoo xam ne dañ leen a te julli seen jàkka ñu fekk leen fa ñuy def xiyaamu layli ñu songu leen fa rey leen tasaar leen toj seeni kër jullit yépp ne cel di seetaan te jullit yi de milliard ak genn wàlla mat nañ ko ci àdduna bi te alali àdduna yépp ñoo ko yore kon nag ñàkk a nangul yàlla moo tax yàlla seetaan lii te waxuma la de Arabie Saoudite Makka Pakistan Turquie Égypte ñeenti réew yi képp laa wax bu ñu mànkoo woon bu ñu mànkoo woon laa wax kon lee ñuy def Israël lee lee Israël def Égypte kon du ko mën a def waaye kenn ku nekk yaa ngi toog sa ruq faalewu lislaam lislaam aw tur la rek tey ñu ngi nii àdduna bépp at jullit yëpp am am gàcce tey ñëpp ñëpp rus ñëpp rus parce que juróom-ñeenti million Amérique ñett téeméeri million jullit yi nekk milliard ak wàll ñu dëkk leen toroxal te mënuñ caa génn war nañoo xalaat seen bopp bu baax war nañoo xalaat seen bopp bu baax xam ne lii de fa muy mujj ak ñoom du baax te caay-caay gii de Israël ñi ngi koy def waaye fii ñu àgg nag Trump mi fi bàyyi ko moo ko fa yóbbu ba tax jamono ba muy ba muy wate ca njàlbéen gi laa leen waxoon ne ñaan leen trompe bu mu yéeg ba ñaanul ba mu yéeg def caay-caay goo xam ne kenn musu koo gis ci alamu islam yi may leen ñaan leen mu wàcc moo tax yàlla toroxal na ko wàcce na ko ci benn mandat te loolu Amérique ñaari ñaar ñaar ñaari président ñoo ko fi defe kon moo leen ñaareel Biden Joe Biden moo fa nekk tey waxagul lu leer ndax mbir mii dafa waroon a dafa waroon a dafa waroon a taxaw ndax conseil sécurité wax nañ ci ñu baree bari wax nañ ci waaye lépp nañ bu nekkoon Amérique lee Israël def dana dakk waaye nee na moom day seetaan day seetaan nag ñaar ñuy xeex kenn di nga puudar ka ci des nga ne damay seetaan loolu ak sot lay tekki waaye noo ngi ñaan Biden Joe Biden su fekkee ne mbir mii def cee laal dara. nekk ci suuf di dimbale yéefar yooyu la daloon Trump lu ko raw yàlla na ko dal ndax gis nañu ne mi ngi tàmbali di lawal ak ngóor jigéen di ci force réew yi ba su réew mi Sénégal ñu ngi ko fi jéem a dugal ba ñi ngi def ay tappale defe ne mën nañoo fexe ba jàllale ko waaye du jàll mukk jarul jéem jëru sonn ak ngóor jigéen du law ci Sénégal mukk ci àdduna tukki ba abaat tukki booy ba ñu bàyyi ci xel bu baax a baax kon lislaam ji de foofu la toll néew doole rek te néew doole ñoo ko teg seen bopp yàlla jox na leen kàttan jox na leen lépp li ci war kon lu ci lu ci des ci ñun la dese waaye du ci yàlla pétrole beeg lépp ñoo ko yore waaye tey Amérique moo leen gaw moo leen moom moo leen yilif Amérique lañ gën a wóolu seen bokk jullit kon alamul islam bi foofu la toll lépp yàqu na conseil sécurité doo dégg kenn mennam ardogan mennam Erdogan ngay dégg mu yëkkati kàddoom di wax di soow wala Iran doo fi doo fi déggaat keneen ñi ci des moom bokkuñ waaye ne nun bëggoon nanu président de la république bu Sénégal mu yëkkati kàddoom wax ci parce que Palestine dañoo dañoo taqoo ak Sénégal yàgg nañu yàgg nañu ñoom moom ñoom sax jiite woon nañ ko Sénégal gi jiite woon nañ ko conférence islamique kenn déggu leen dara xewut waaye nag war naa yëkkati kàddoom ndax ba mu xew ba mu ba mu xewee ca France ci Charlie Hebdo fii lay jóge woon nag dem ba mu demee naan nun nu xaw nu mu ko waxee ci tubaab kamaana dem nag naan ci Charlie Hebdo ci ci wu wu ñooñu nga xam ne ay saay-saay képp lañ buñ defee luy lu toll nii l'islam te nga jiite quatre-vingt-quinze musulman ci ay julit war ngaa yëkkati sa kàddu bañ dégg la kon donc ciy déglu